wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man walah amma baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala mu màgg mi ci mayam yeeg xéewalam yi nga xam ne du jeex di seede ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Muhammad ibni Abdullah mooy yëlimaan yi képp ku jub mooy yëlimaan yi képp ku sell mooy ki gën ci ñi mas woote jëme ci wéetal yàlla mooy ki gën a dund loolu te sax ca ba faatu fekk ko ca sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain gannaaw loolu ci ñaari xutba yi weesu jotoon nañoo wax ci bu jëkk ba ngëneel yi nga xam ne tawxid am na ko ñu yëgle woon ne tawxid mu di laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ñaari baat yooyu képp koo xam ne wéral na ko kooku ci waa àjjana la bokk kon yàlla na yàlla boole ci ñu ko wéral waaye mu am ay charte yoo xam ne su dajewut wéral gi day jafe wala du am su dajewut wéral gi du am charte bu jëkk ba la ñu waxtaane woon ca ba ca tegu moo di al ilmu mooy xam ne laa ilaha illa allah li muy firi mooy summiku ci lépp lu ñuy jaamu taddu sunu borom tabaraka wa taala ba nu bind ngir jagleel jaamu gi sunu borom tabaraka wa taala yëgit ne roy ci diini ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yeyoo kon sartu ñaareel bi ci la waxi tey ji jëm mu di al yaqin nit ki am ak wóolu baatu laa ilaha illa allah ne lii lu ko wóor la ne li muy tegtale moom lay tegtale lu ko wóor la ne li muy jariñ loolu lay jariñ lu ko wóor la ne ku ko amalut ci sa dund gëm ko la muy lor loolu dana tegu ci sa kaw kon loolu mooy yaqiin kon yaqiin muy ak wóolu su xasee ñëw sikki sàkk jóge na fa mooy ni la sërëti baaraam yi wóore wala lu gën a wóor loolu nga gëme noonu ne yàlla dong moo yeyoo jaam wóore la ni ne diine ji ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp la mën a jóge gëm nag lépp loo xam ne yonent boobu xabaar na la ko mu doon xabaar bu wér wala borom bi tabaraka wa taala wàcce ko ci moom mu nekk ci alquran ci lu dul nga di ca sikki sàkka wala nga di ca déng-déngi wala nga di ca am ay njort gëm nag lépp lu jóge ci sun borom tabaraka ci ay ndigal ak i tere ak i xabaar yoo xam ne yu ñëwagul la te nar a ñëw muy lu aju ci faatoog la ca gannaawam muy yowmal qiyaam ak melokaan yi nga xam ne moom la àjjana mel ak melokaan ya sawara mel ak fenn fu ña fa yeyoo dugg ak mboolem melokaan yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala melale na ko boppam ci alquran wala ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga gëm ko am ci yaqiin loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xamle yaqiin mooy lan muy ak wóolu daf ne mooy li sax ci dënnub nit ki li sax ci dënnub nit ki xelam dal ca ba amu ca benn sikki sàkka donte sax gis na nit ña di wax lu wuute ak loola donte sax gis na nit ña ñuy dund lu wuute ak loola donte gis na sax ña ñuy tudde boroomi xam-xam bañ àgg ci di ifta di ubbee ñuy ubbee lu juyoog loola waaye dëgg gëm xam mu sax ci xolam sax ci dënnam ab xolam gëm ko dal ca loolu mooy yaqiin kon mbokki jullit yi doyul rekk nit ki mën a wax laa ilaha illa allah ci aw làmmiñam du doy rekk it su xamee ne laa ilaha illa allah lii lay firi mu jàng ko xam ne kat li muy firi mooy waruñoo jaamu kenn ku yàlla yem ca loola waaye bi mu xamee maanaam bi ba àggal da caa war a am yaqiin boo xam ne daf koy wóor wóor ne amut sikki sàkka ci ne loolu muy tegtale noonu rek la demee <coughs> ndax kat sikki sàkka ak déng-déng yi bu duggee ci pas-pas daf koy yàq moo tax suñ borom tabaraka wa taala daf ne ñi gëm ngëm gu am njariñ moo di ñi nga xam ne gëm nañu yàllaa ko yonentam kon mooy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mu teg ci ni tumma lam yarta tumma lam yartaabu la ca tegu mooy sikki sàkka wuñu boole ko nag ak jëf-jëf yoo xam ne day wane ni sikki sàkka wuñu mu ne wa jaahadu ñi nangoo def effort nangoo jihaad ci seeni alal ci seeni bakkan ci yoonu yàlla borom bi tabaraka wa taala mu ne ulaika hum saadiquun ñooña ñooy ñiy dund dëgg mooy ñi nga xam ne yemuñu ci wax dëgg waaye dañuy dund dëgg kon summa yar yartaabu ñu bañ a sikki sàkka loolu mooy tënk bi gëm yàlla gëmub yonentam bañ a sikki sàkka su loolu amee rek yeneen yim tudd dana ci nangoo teg mooy nit ki dana nangu bakkanam ak alalam ak yépp bu fekkee ne ci kanam imaan la ak ngëmam ngëm-ngëmam yooyu yépp mën nañoo dem te lu woyof lay doon ci moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci am solo goo xam ne am na ko solo ci laa ilaha illa allah dafa wax abu hurayra benn bis fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jekki-jekki réer saxaaba yi xamatuñ fu mu nekk ndekete dafa fekk benn tool mu dem toog fa moom dong làqu fa tool bu lëndam ay tàndarma ay ñag ñi di ko wër ba Abu Hurayra jëkk koo gis yam ci moom bi mu ko gisee mu jox ko ñaari dàllam ne ko ŋàbbal dàll yooyu boo demee boo dajeeg mbooloo mi nga wax leen lii moo tax mu ne ko man laqiita min waraai hada alxaait koo dajeel ci bitub tool bi te fekk ma ngay wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah mu doon lum wóolu mustayqinan biha qalbu demal koo dajeel muy wax ashhadu an laa ilaha illa te wóolu ko ci ab xolam fa bashirhu bil janna bégal ko ne ko ci waa àjjana la bokk kon xabaara ngoog boo xam ne Abu Hurayra moo leen ko andil jëlee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci situation boo xam ne duñ ko fàtte mukk ndax lu toll ne bi yonente moo leen réer kenn ku nekk doon gaat nga ak a neexoon lu nar a dal ci kawam dal ci sa kaw ñu wëlbatiku ci saxaaba yi buy ñëw yor ay dàllam kooku la seen xel di jëkk a dem mooy musiba am na waaye ñoom ñëpp mu ne leen def leen ndànk ñi taxaw déglu ko ndax xabaar bi mën a wér ndax mu mën a leer ndax ñu bañ koo fàtteeti won leen ni kat ay dàllam laa waaye mu ngi ci jàmm nee na képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa mu doon lu dëggu ci sa xol nga gëm ko mu wóor xamal ni ci waa àjjana nga bokk ñëpp daal di bee ci beneen xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam mooy wax mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah maa ngi seede ne yàlla kenn yeyowul dara ci jaamu ku dul moom maa ngi seede ne man maay yonent yàlla mooy wax de mu teg ca ne amul benn jaamu yàlla boo xam ne dana daje boroomam yóbbaale ñaari kàddu yii gayra shakkin fihima te amu ci benn sikki sàkka illa xaramahu llahu ala na lu dul sunu borom tabaraka wa taala araamal ci kon ki ñaari baat yi am ci yaqiin mucc sikki sàkka kooku ci waa àjjana la bokk te mucc na ci sawara yàlla na yàlla defal loolu <clears throat> moo tax abdulahi ibne omar ibne alxataab radiallahu anhuma da doon wax bi salallahu alayhi wa sallam lu baree baree bari da daan toog ci jataay su dee jóg day ñaan ñaan yii allahuma aqsim lana min xashiyatika maa yaxulu baynana wa bayna maasik yàlla yàlla nag nu cëral ci nu ragal la ragal goo xam ne dana dox suñ diggante ak mooy say ndigal wa min taatika ma tuballiguna bihi jannatak yow suñ boroom yàlla nag nu cëral ci topp la loo xam ne dana nu mën a jàppale ban tàbbi àjjana teg cee nag ne wa min alyaqini ma tuhawinu bihi alayna musibaati dunia wala masaahiba dunia mu ne ko yàlla nag lu cëral ci yaqiin muy ak wóolute ci sun ngëm-ngëm ak sun pas-pas loo xam ne dana mën a wayefal ci nun musiba yi nga xam ne mooy dal nit ñi maanaam musiba mu ñëw dal sun kaw yaqiin mën na ko wayefal abu bakar siddiq radiallahu anhu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam daf doon wax ne ñaan leen yàlla njëggal ak jàmm ñaan leen yàlla njëggal ak jàmm ndax kat nit ki gannaaw boo xamee ne yaqiin jàll na maanaam am na pas-pas bu wér te am na kóolute ci pas-pasam bu wér bu loolu jàllee nee na kenn joxu ko lu gën ci moom jàmm su pas-pas bu wér bu ànd ak kóolute wéyee nee na jàmm moo fa sës danañ ko yàlla defal moo tax ci beneen xadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki dafa ñëw ne ko jàngal ma lu may ñaan mu ne ko ñaanal sa boroom yaqiin ak aafiya yaqiin mooy pas-pas bu wér bu ànd ak wóolu ak jàmm mu ne ko ñaanal yaar yooyu boroom xam-xam bu mag muy alxalim yi mu ne loolu ci kaddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne day gàtt te làmboo yi wu bari ci la bokk ndax kat mbir yi nga xam ne daa aju ci wàllu àllaaxira muy xeeti jàmm yàlla yi ko nuru amu ci lenn loo xam ne borom bi tabaraka wa taala dana ko nangu lu dul su fekkee dafa ànd ak yaqiin maanaam kóolute bu dee lu aju ci wàllu àdduna it ne nit ki luñ ko mën a jox du ca jariñu du neex ci moom lu dul su fekkee ne am na sécurité am na wér gi yaram am na xel mu dal kon kooku mooy jàmm nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu dafa boole mboolem lu aju ci àllaaxira ci benn baat muy al boole mboolem lu aju ci àdduna ak li ci biiram ci benn baat muy al aafiya muy jàmm mu ne ko ñaanal yàlla yaar yaar yooyu su la ko mayee kon sa àdduna ak sa àllaaxira baax na yàlla na yàlla may al yaqin wal abdullah ibn masud radiallahu taala anhu loolu moo tax mu ne al yaqinu al imaanu kullu gëm yàlla lépp lépp a ngi ci biir yaqin ndax su ca yaqin génnee muy kóolute su boobaa gëm gi duutu am njëriñ kon mbokki jullit yi xéewal a xam ne genn xéewal tolluwu ni muy xéewalu xam pas-pas bi am ko ba noppi ànd ci ak wóolute dëgër ci itam su ko nit ki xasee am kooku mooy yëg bànneexu ngëm yàlla kooku mooy kii mën a dund dund goo xam ne gu ànd akuk dal la gu ànd ak xel mu dal lay doon ndax kat yaqiin bu xasee wàcc ci ab xol boroom dana gërëmloo dogalu boroomam su fekkee dogal ba dikk na doon lor ak i jafe-jafe ak i musiba walla ñàkk ak i njàqare day muñ te xam ne loolu ab yool la mu am yaqin su fekkee ne dafa ñëwitam doon lu neex ak wér gi yaram ak jàmm ak lu ko nuru dafay sant boroomam te xam ne xéewalu boroomam la su ko defee mu doon ci moom tuyaaba kon ki am yaqin mooy ki xool dëgg-dëgg adduna mii bët bi mu yeyoo mooy ki xool àdduna bët bi mu yeyoo ñu xool ko ko mu xam ne adduna mii këru wor la kër guy dañ la kër gu bari ay nëx-nëx ak i naqari naqari la kër gu bari ay njàqare la kër la goo xam ne am ndaje la moo xam ne day jékki-jékki tas tas bu gaaw a gaaw kër gu fees dell ci fitne la kër gu bari ay nattu ak i balaa la boobu bët lay jëkk xool àdduna bu noppee it xool ko gis ne moom kat li muy mel mel noonu kërug nattu la goo xam ne dañ nu fiy cëppeel di xool ba xam lu nuy def kon mooy bayukaay bi mooy jëfukaay bi itam kon kërug farlu la war a doon kërug def yiw te gaaw ca kërug def effort muy jihaat te gaaw ci te lépp looy def nga jubli ci ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala ak ajjanaam kon ki am yaqin mooy xool bët boobu mbokki jullit yi ñi nga xam ne ñoom la yàlla baaxee yaqiin yàlla jox na leen ay jagle yu màgg yoo xam ne tudd na ko ci alquran bokk na ca moo di borom bi tabaraka wa taala yi nga xam ne moom la won nit ñi ci ay kéemaan yoo xam ne da koo bind ñu nekk ci kaw suuf wala ñu nekk ci asamaan wala ñu di ko jàng ci téere yi kéemaan yooyu ña cay jariñu mooy ñi nga xam ne indil na leen yaqiin moo tax mu ne wa fil ardi ayatun lil muqinin ci suuf si ku ko seet xool li fi nekk ak li fi yàlla bind ak ni mu ko bindee ci ay xeeti kéemaan nee na foofu yu mën a waaree ngi fi waaye nag ña cay waaru moo di al muqinin ñi nga xam ne dañoo am yaqin yaqin dafa nekk seen xol mooy ak wóolu nee na kéemaan yooyu bi mu koy wàccee sax li ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne dañoo am yaqin ba tey it ahlul yaqin mooy ñi nga xam ne am nañ kóolute googu ñu ñooy ñi gindiku ci kaw suuf borom bi tabaraka wa taala wax na ko ci alquran ñi nga xam ne suratul baqara alladina walladina yuminuuna bima unsila ilayk ñi gëm li ñu wàcce ci yow muy alquran wa ma unsila min qablika ak téere yi ñu wàcce woon mu jiitu la wa bil axirati hum yuqinuun ñi boole ko ak am kóolute ngëm gu ànd aku kóolute ci àllaaxira ak lépp lu ci aju ba tey itam ngëneel yi ñu leen defal ak jagle yi bokk na ci moo di bu ëllëgee borom bi tabaraka wa taala dana dëgëral seenu lay ñoom ñi am yaqiin buñ leen di laaj ci xabru ña seenu lay di jub ñu mooy ahlul yaqiin ña seenu lay di dëng mooy ñi nga xam ne ñooy ahlu shakk seen lépp ci sikk sàkk lañ ko tegoon moo tax ci xadiisu bi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di lee malaayika yi nga xam ne képp ku kuñ suul muy munkar ak nakiir ñu ñëw yëkkati la di la laaj xadis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañ koy laaj lan la doon jaamu ak kan moo doonoon yonentam kenn ku ne ñaari laaj yooyu danañ la ko laaj nee su fekkee daa bokk ci ñi doon jaamu yàlla nee na mu ne kuntu abudullah man day dama doon jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf noo indil woote bi nu daldi gëm daldi topp ndigalam yonent bi mu ne loolu mooy li borom bi tabaraka wa taala wax ci alquran yusabitu allahu alladina amanu bilqawli sabiti fi alxayati dunya wa fi alaxira nee na mooy li yàlla wax ne yàlla dana dëgëral layu ñi gëm yàlla ci tontu loo xam ne tontu lu jub lay doon bu bis boobaa fii ci àdduna ak ca alaxira nee na su waa ji waxee loolu fa yuqaalu lahu ala alyaqini xayit ñi ne ko yow ci sa dund ci yaqin nga doon dund mooy da amoon kóolute ci sa gëm wa alayhi mutta te ci loolu nga dee maanaam kon sax nga ca ba faatuwaale ko wa alayhi tubaas te buñ lay dekk yi dañ lay fekk nga yoraale sa yaqiin ne su ko malaaka mi tontoo loolu ba àggal ñi ubbil ko bunt bu jëm àjjana mu soqi ko ci ab xabroom jëm àjjana kilima ba di ñëw su ko defee ñu yaatalal ko pax mi ba mu yaatu lool climat ba di jóge àjjana nag ak lenn ci xéewal yi di ko fekk foofu muy nekk ba kero yomal xiyaam di taxaw ñu ne xéewal ga muy nekk day neex ba xadis bu gudd a gudd la day wax saa boroom bul taxawal saa bu yomal xiyaam ñëw xabru bi nii ma mel fii baax na soxlawuma leneen ndax ragal na ne yomal xiyaam mën naa taxaw lu neex loolu yi di ñëw jóge àjjana mën naa leneen mën na ko gaar ci diggante bi wala cat mën na cee dugg wala yaasu billah comme yi doom aadama di yóbbaale mu ne allahuma la tuqimi saa bul indi mukk yowmal qiyaam bàyyil nii nee na su fekkee daa bokkoon nag ci ñu doon sikki sàkka suñ ko laajee koo doon jaamu mu ne laa adri man kat xawuma ko damaa gisoon nit ñi rek am luñ doon wax ma it ma àndoon ak ñoom wax dégg ñuy wax rek ma wax su ko defee ñi ne ko ala shakki xayit yow ci sikki sàkk nga doon dundu wa alayhi mutta te itam ci nga faatu wa alayhi tubaas ci sikki sàkka moo doon sa dundu démb ci nga faatu ci ngay dekk itam summa yuftaxu lahu baabun ila naar ñu ubbil ko bunt bu soqi ko ci xabru bi jëm sawara waliyaasu billah su ko defee cóola la di ñëw di ko fekk foofa ak tàngoor wa yusallatu alayhi aqaarib wa saabiin xabru bi fees dell ak xeeti jiit ak i jaan yoo xam ne neena na jaan yooyu seen nañuy fuuftandikoo puur it may génne ci ñoom suñ génnoon ci àdduna rekk bu ëffee ngelaw liy génne ci jaan jooju dana tax suuf benn gàncax duutu ci sax xadis ba nee na su boobaa waa ji day wax ne yàlla gaawal taxawal yowmal qiyaam ndax mu mën a génn fii mu nekk yaakaar na ne sawara lu mu tàng tàng tàng munta gën a ñàng lii muy dund ci biir bàmmeelam bi kon mu doon mbir moo xam ne mu doy waar la waaye li la ci ñor fii moo di ki am yaqiin ak wóolute ci diine ji ci laa ilaha illallah ji mu jaral ko kooku moo mujj ci doon sikki sàkk nag lu ñëw mu deng dengi su ndigal yi ñëwee mu ne ah yàlla baax na bu ko neexee def bu ko neexee bàyyi bu fitna ñëwee mu bàyyi la mu nekkoon sax far jaral na ko dellu gannaaw ñooñu ñooy waa sikki sàkka yàlla nu yàlla musal ci loolu mbokki jullit yi yaqiin nag noonu mu baaxee ci nit ki su fekkee ne wér na ne nit ki lim gëm lu ko wóor la lu ko jaral la faw mu am ay màndarga ak i jeexit ak ay effet yoo xam ne danañ ko gis ci dundu nit ki li gën a fés ci luy wone nit ki ne am na yaqin ci lim gëm ne moom la gëm dëgg-dëgg mooy saxooroy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jàpp ci diineem ji te wattandikoo mooy moo tax borom bi tabaraka wa taala bi mu waxee ci alquran ne wa maa jacalna alqiblata allati kunta alayha illa li naclama man yattabicu rasula mimman yanqalib ala aqibayh jullit yi bañ leen jëkkee digal julli dañ daan julli di jëm baytul maqdis dem ba mu yàgg ñu digal leen ñu julli jëm màkka nit ñi tàmbali ñenn ñi am di sikki sàkka ndax dañoo war a bàyyi li dañoo war a def li coow li bari borom bi tabaraka wa taala wàcce alquran ne ah li tax ma soppi xibla bi danoo bëgg xam kan mooy topp yonent bi ak kan mooy topp bànneexam abdulahi ibnu abbas ni mu firee loolu li naalama man yattabiu rasula mimman yanqalib ala aqibay nee na ngir nu xàmmee ñi nga xam ne ñooy ahlul yaqin ak ñi nga xam ne ñooy ahlul shakk ñi nga xam ne dañuy dund kóolute ci seen pas-pas nga xam ne bu yonent bi ne nii la rek amuñu lu ñuy sikk sàkk ci ne noonu la bu dee du yi itam amuñu lu ñuy sikk sàkk ci loolu nee na aaya boobu dafa ñëw ngir ràññale ñooñu ñu mën leen a xàmmee kon roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lépp lu mu digle sa kem kàttan ak bàyyi mboolem lim tere loolu day wone ni nit ki am na yàqiin ci gëm-gëmam waaye nag su ne ah lii daal jàpp naa ne xaw naa diis ci man wala lii daal su ma ko defee ba wëtul mën naa am lu muy wàññi ci sama wërsëg wala mën naa am lu may yàqal ci sama dund moo tax du ma ko def su boobaa kooku yàqiinam des na ñaareel ci mandarga yi ahlul yaqin moo di ne nit ki baa amee yaqin àdduna ak li ci biiram day tuuti ci kanamam nu mën a toll du dara moo tax jaabir ibnu abdullah mi ngi li kenn ci saxaaba yi euh, mu ngi tudd umayr ibn alxamaam dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kero Uhud kero xeexu Uhud xadis baa ngi ci Buxaari muslim ne ko yow yonentu bi yàlla bi su ma xeexee ba faatu fi sabilillah fan laa jëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko àjjana fekk bi muy wax loolu mi ngi yor ay tàndarma di ko lekk mu ne ah man de su ma fi toogee lekk tàndarma ji ba mu jeex kon loolu dana yàgg lool loolu dund gu yàgg la daal di sànni tàndarma yi dugg ci biir xeex bi di xeex ba faatu daal di dem àjjana comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee kon loolu yaqin moo koy joxe ndax kat dee gu xonq coy gu taxaw ci kanam nit mu jàkkaarloog moom mu wóor ko ne day dee kooku lay tax mu di ca dugg moom am yaqiin ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy waral yaqiin itam su amee muy wóolu gi ndigali borom bi tabaraka wa taala lum diis diis fi bakkan nit ki dana ko mën a dékku dana ko mën a dékku day woyof ci moom lool sax daf ciy sawar day yëg ne cër yi dañ ciy sawar ndax dafa am yaqin ci bu jëfee jëf ji li koy xaar ci ab yool boo xam ne buñ ko dig la mooy yàlla gi agsi na am na yaqin ci ne su ci duggee musiba moom koy teg xam na lu mu doon am na ci yaqin mu daw lu mu diis diis daf koy attan boo jëloon lu bari ci qisasul anbiya ak dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi da ngay gis mu fees dell dell dell ci ay ndigal yu diis gann yoo xam ne yaqin rek moo tax boroom mën a jàll qissab yonent yàlla Muusa ak yaayam kenn ku ne xam na ne menn at ay xamkat dañoo ñëw ci na xam nga dañoo ñu dañuy dimbalante ak seytaane léeg jabar yi mën a dem ba seytaane sàcc dara ab xabaar xamal leen ko ñu ñëw jottali ko jariñu ci bu ñu waxee benn dëgg mën a wax téeméer yu dul dëgg boole ca ñu ñëw ne ko at mii kii folli sa nguur ci lay juddu te xale bu góor lay doon Muusa daal di digle ne xale bu góor bu juddu bu mën a doon nañ ko rey xale bu góor bu juddu bu mën a doon nañ ko rey ñu tàmbali di rey xale yu góor yi ba mu yàgg yàlla dogal yaay Muusa jur ab xale bu góor muy Muusa alayhi salaam làq ko di ko yar di ko nàmpal ba mu yàgg xelam dalatut ndax mbir ma demoon na ba àgg ci ku jur rek fa nga jure da koy daal di yóbbu ñu rey ko su amee ci sa loxo ay fan bu ñu la gisee yaa ngi moom lañuy boole rey bi xale bi nag demee ba am ay weer ci loxo yaayam mu am njàqare gis ne moom mii suñ ko gisee mën nañ koo rey te xamul lu muy def xale baa ngi judd yor melokaan woo ne yéeme na ci wàllu taar ak di màgg-màgg goo xam ne gu gaaw la xamul lu muy def borom bi tabaraka wa taala jox ko ndigal ñi ne ko nàmpal ko su fekkee ne da nga ragal nag demal nga sànni ko ci dex gii di daw ah kooku njàqare la war a andi mu ne ko wala taxaafi bul ragal wala taxsadi bul tiit inna radduhu ilayki danañ ko delloosi ci yow wa jaa'iluhu min al mursalin dana bokk ci yonente yi itam kon waxi borom bi tabaraka wa taala ngoog joo xam soxna si dégg na ko fan la ko yàqin jooju tollu ba mu mën a def ndigalul suñu borom tabaraka wa doom ji nga xam ne dangaa ragal ñu rey ko ñu ne la faf sànni ko nag dugal ko ci gaal ub gaal gi sànni ko ci ndox ma boobu mucc wax di doy na waar ndigalul suñu borom tabaraka wa am ci yàqin dong moo mën a tax jigéen ji def ko doomam ci lenn ci téere yi def xissa bi nee nañ ngelaw li jamono yiñ ko koy wax da doon dox jëm ca wet ga féetewut ak kër na bi mu xoolee gis dex gi ndox mi daw jëm ca safaan ba li ne ci xelam mooy ah xëy na kon mbir mi dafa nar a mucc ndax jëmul kër firaw na waaye bi mu sànnee gaal gi ci biir dex gi rek ndox mi daal di wàññiku mu dox nag jëm kër firaw na xanaa foofu su dul woon yaqiin ndey ju sànni sa doom ngir rawale ko ba firaw na du ko gis far mu waññiku jëm foofa ba wëttuut la muy def mooy gaaw fa baat gaalam waaye yaqiin ja tax na xel ma dal na mu xaw ne borom bi tabaraka wa ay waxam munta dañ te moo wax loolu mu bàyyi ko ba mu àgg génne ko fa mu nekkoon ci kër yaayam kon ak gaalam ak weenam moom doon nàmp sànni ko mu tàbbi kon kër firawna yàqin jooju la mu jural soxna sa mooy lan mooy fañ doon reye xale ya bañ ko gisee borom bi tabaraka wa taala moo sànni ak cofeel ci xolub na mu bëgg xale boobu soxnaam jël ko ne ko ginnaaw amunu doom ten koo def doom xelam génn na ci yooyu yépp nee ko xëy na mu amal na njariñ bu ëllëgee firaw na daal di ci loola ñu bëgg ko jël ay nàmpalkat di leen fay ñu di ko nàmpal boole ko nag ak sonn ci moom lool ni ko borom bi tabaraka wa taala waxe li tusna ala li tusna ala ayni ngir ñu di la defar ma taxaw di la contrôler ñu di la defar may contrôler borom bi tabaraka wa taala di contrôler ñu di ko defar ba mu mel na mu war a mel ba toll na mu war a toll màgg la xew ca xista ba xew ba mu folli na comme na nga xamee ne noonu la ko borom bi tabaraka wa taala nettalee yaqin boobu nga xam ne moo musaloon Muusa yaqin boobu moo ko musalaat bis ba nga xam ne ñëw na ba jaamaarloog firawna moo ci sës ndax bu leen fàtte ne ba mu demee ba dara sësut ci lu dul firaw na xëy ne daf koo fas yéene génne àdduna muy ba mu demee ba not jabar yam yaakaaroon jabar ya tuub ànd ak Muusa firaw na dafa génn ak mbooloom di ko dàq fas ko yéene rey Muusa ànd ak mbooloom génn ñi ko gëm biñ ñëwee ba agsi ci géej gi géej gi xar nekk suuf mu jaar ci biir xàll suuf woowu waaye bi mu daataan dugg ci xàll suuf woowu te defagut aw xàll sax mu jëm ci géej gi nga xam ne ñëw na ba agsi ci tefes gi geesu seen raw na di ñëw jege leen lool ñim àndal luñ ko wax inna la mudrakuun nun de danañ nu dab danañ nu peeg sax lay firi foofu ndax géej jaa ngi ci suñ kanam noonu bàyyi ci suñ gannaaw Musaa lum leen wax kalla inna ma'iya rabbi sayahdin mukk munta nekk géej jaa ngi ci suñ kanam noo ngi koy gis noonu baa ngi suñ gannaaw waaye sama borom moo ne ma génnal te am naa yaqin ci ne am na luy tax duñ ma lor foofu la géej gi xare Moussa dugg ci biir ba muy génn fekk firaw naag ñam àndal ñu nekk ci ndox ma tàmbali di ñëw ca kanam di ñëw ca gannaaw ñu geesu seen ne na ci boppam day lab moom ñoom àndal la fa xew xew fa ba foofa la firaw na alko moog ñoom àndaloon Moussa mucc na kon ca jamono yi ak liiram ci sababu si yaqin muccaat na ci sababu si yaqin ci jamono yi nga xam ne dem na ba jaamaarloo akub noonam yàlla nu sunu borom tabaraka wa taala may yaqin allahuma aqsim lana min xashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna maasik wa min taatika ma tuballiguna bihi jannatak wa min alyaqini ma tuhawinu bihi alayna masaiba addunya allahuma matticna bi asmaacina wa absaarina wa quwaatina ma axyaytana wajcalhu alwaarisa minna wajcal tharana ala man zalamana wansurna ala man aadaana wala tajcal musibatana fi diinina wala tajcal addunya akbara hammina wala mablaga cilmina wala tusallit alayna bidunubina man laa yaxaafuka fiina wala yarxamuna wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ñu del si rek di fàttali mbokk yi ne weeru chaabaan wi comme que teru na tey la bis bu njëkk bi incha allah ñi yore woon bori koor yi ñu fas ko yéene bàyyi xel ji ma fay bari koor yi weer weer weer bu baax a wooree lu ci nit mën a woor baax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy weer wi ëppoon lu muy woor ci weer yi waaye nag musta woor wenn weer ba mu mat lu dul weeru koor musta woor wenn weer ba mu mat lu dul weeru koor kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax euh, lu ci waay mën a woor rawatina nag bor yi moom fay ko day ko ci képp koo xam ne ku mën a fay bor la booba tuuti itam lu aju ci bunt bi ñu ubbi woon dana taxaw ba weeru koor wi jàll incha allah ndax xutba yi ñëw jiima jubli ci jiima jàng farate ju màgg jooju nga xam ne ponk la ci ponk lislaam yi fàttalente ko ndax nit ñi mën koo doxe ci anam gi nga xam ne ni la ko sun borom bëgge tabaraka wa taala wasalaamualeykum wa rahmatullah